ñu ngi sant yàlla di julli ci yonant bi ñàkk ku rëy ci ñun koo amul dayo ci ñun ndax ku ñu xam ñun ni papa ak kii jóge magam Serigne Cheikh ñoo daan ànd sam papa moo doon bëkk néegam mu yar sama mak Abdou Aziz Gueye ñu xam ko lool muy nit koo xamante ne nit ku exemple nit ko xamantene dal adina bepp ñak a du ñun rek ñoo ñak ñepp ñak ñi ngi ñaan yalla fu mu jëm gënal ko fu mu joggé ci barke sayidina Muhammad ñi ngi ñaan yalla bayam ba téru ko ci barke yonent bi lo rek la lo torop xare ci diine xare fépp ci Tiwaawan lol lol lol nit ko example daal nit ko xam lan nga jàppoon ci mom ben image nit koo xamante ni daal ki ko yar rekk la jël jikkoom muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane moom kese la jël jikkoom. wax dëgg yàlla ko faral la woon baaxoon na yaatu na moom daal xool fees na trop wax yàlla di ko ñaanal rek yàlla yërëm ko xaare ko ci àjjana gën a kaw moom alaaji maa ngi daal ay Maodo rek la fi bàyyi kër gi kër yàlla la yàlla la sant moo tax lu fi ñëw rek dañ koy teg ci sharia teg ko ci sunu si yonent bi alayhi salaatu wasalaam paam na lu ñu xam ci moom rek ah njabootu sëñ kër Si moom ah mooy njabootu sëñ El Hadji Malick seetu bu toj la rek koo dam dambit boo for rek gis sa bopp waaw kër gi kër chariatul islamiya la ak sunnata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu Maodo yare loolu la ñu Maodo xamale lii yàlla ba mu ne kullu nafsin zaiqatul mawt xalaqal mawt wal xayaat li yablukum ayukum ahsana amala du nekk betteel ndax al mawt yaati baxtatan waaw dee dafay bette ndax dañ koy sóor ndax sóor gi ñu koy sóor mooy xel xel yàlla gi ñu bàyyi xel yàlla gi ni bàyyi xel te xam ni ba mu lay bind tàgguwu sa ndey tàgguwu sa baay su lay jël tamit du tàggu kenn ah du mënuñu bett ndax du tax mënuñu bett euh, parce que euh, li ñu yàlla sant boo ci nekk toujours euh, sabaxaan wa masaaxaan lay leen waxaan kullu waxtin kon dee du la bett de ki mi bet moy ki nga xam dafa sagge na digganteem mak boromam waaw parce que nit ki ci yàlla la jóge te ci yàlla la lay delluwaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon préparer sa bopp pour ëllëg soo demee nga mën fa fekk loo xam fa tabarakalla kon mbir mi bokkuñu bettuñu bettuñu ñu ngi sant yàlla di gërëm kilifa yeeg ñëpp daal fa tabarakallahu ahsana xaaliqin nekkul daal lu ñu bett ndax boo gisee dëkk bi mi ngi ni tekk ak ànd ak dal ànd ak teey كين يوهو في كين دانو في كين خلو خلو في نيب نيجي خمني يالله سبحانه وتعالى موني جهون حاج مالك يالله سبحانه وتعالى موكو جلات نيجي كوي نانغو ديكو نانغو دو دو دو دو دو نقرنات مبكتلا دو نقر مبكتلا ndax tamit euh, fa fa euh, ku delu wat sa borom ah fa tabaarakallaahu ahsana xaalaqiin boo fi nekkoon li neex yàlla ak yonent bi sa salaam soo sa bopp ah xëy na ñi nga bàyyi xëy na ñooy xaw a am ay jiixi jaaxa waaye fa nga toll fa tabaarakallaahu yaa ngi sant yàlla di gërëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu góor moo nekkoon caatam bu góor taxawoon ak baayam lool sëñ Babacar bëggoon ko lool ndax ki mu gën a bëgg la ko tuddee muy Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallaahu anhu euh, mu daan dox ci cohésion familiale. maanaam famille bi lu ko lu ko rataxal ñëpp gis nañ ko ni mu amee woon àllaaqa ak xalifa bi yàlla na ko yàlla wanale ak baayam jataay bu mu dajee woon moom ak sëñ Moustapha Sy al bu sëñ Cheikh Tidiane Sy ak sama sëriñ sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz ñoom ñaar ñuy géngente ñaan gi ku ne naan papa ñaanal kii naan maam ñaanal kii naan papa kii naan ko yaay papa yaay maam mu nekk jataay bu daw yaram ku ci nekk jël ñaan gi bëgg ko jox sa moroom tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla na ko yàlla na ko maamam teer liggéey na ci keppaaru maamam ak keppaaru baayam si xaaj sëñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu lu rëy a rëy loo xam ni kenn du ko fàtte.